jërë ngeen jëf mbokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar ñu amati mbégte contentement baax baax ñu ngi amati mbégte baax toog ki amati mooy Sëñ Cissé ñu fas yéene waxtaan ak moom tuuti tey ci mbirum làmb naa la tey Sëñ Cissé tey incha allah rabbi tey dinañ waxtaanee làmb ci lu am solo ci ay combat yi nga xamante ne moo fi jaar jàll ci ay combat yi ah làmb ñëpp teg seen bët incha bi tey ci lay fas yéene waxtaan ak ki xamante ne mooy Sëñ Cissé waaw dañuy waxtaan tamit ci combat démb bi ci lu am solo lool. si see ginnaaw bi dañuy bàyyi nga nuyu rek ñëw waxtaane làmb aousubillah min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim mbokki julliti mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ji jiite ci nuyu mun Muntaxa Basiru suñ boroom bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool tam wér di ñaanal tarixa yëpp tijaan xaadir laa ñeseen ñëpp saa borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool tam wér di ñaanal àddina sépp jàmm rawatina Sénégal gi nga yi yàlla def ci jàmm ak salaam di ñaanal tamit équipe nationale bi tamit yàlla may ko ndam ci li muy wuti di ñaanal ñëpp jaam ji ñaanal waa bitim réew yàlla defal leen jaam ak tawféex di ñaanal képp koo xam ak ngay jafe-jafe rek day dégg suñu kàddu yàlla na ko yàlla saafaraal di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw <coughs> jërëjëf sëñ Cissé ni ngi noonu rek Babacar laay ñëw ak yéen ci li xamante moo ci VAR parce que man ak moom dañuy tout le temps indi VAR dama ñëw ci moom dégg ko suñu jënd ma abul gis naa signature ba amoon fële ca jën kere def ay tegtal yoo ne kuy wuti di ko def baakaar nañ dem var ma xool si la foofu. ci moom loo xam nag neexuma kere ci signature ba gis naa ko ci jën kere loo xam neexuma te ndaw lu bëgg a wuti luy wuti dara pour ba am warul yor signe boobu. gis naa ko keroog bi mu taxawee ak Sarko ci signature bi jàll. gis naa signe bu mu def boo xam loolu bëgguma ko ci ndaw lay wuti. surtout mbër moo xam ne mbër mu ndaw la war a daje koo xam te ji lamb jo mooy su buntaat dina ngay def si ñooy bëgguma ko ci wante daal na liggéey na liggéey lamb jërëjëf Babacar dem nañ vaar gis ngeen nañu waxante na ñoo Sëñ Cissé Sëñ Cissé combat bi lan la danga koo gisoon wala waa abu daanaka nee naa la ñaan mooy sama métier te suñ borom def na ni programme yu bëree bëri di xew ci réew mi yu bëree bëree bëri dama koy xool ay nit dañ ma koy xoolloo di ma ci wax lu bëree bëri bi may wax lool noonu sax ci signe boobu nga xam ne tey jii nii wax naa la ko ci biir vidéo ma ne la Diène Kairé gis naa ko mu toog ci plateau TFM bi def signe boo xam ni jàkkaarloo ak Sorko def signe boo xam ni kuy wuti du ko def wala kuy wuti dara pour bëgg caa am ndam duma gis muy def signe boobu signe boobu baaxul signe boobu nag nekkul loo xam ni day def nii ngay dégg gis ci jëbi nga koy xame ci xar kanam bi ngay gisee signe boobu si boobu ci xar kanam la loolu nit dëgg moo koy xam wala ko yàgg dox wala magum làmb mooy xam siñ boobu ci xar kanam la feeñ ma xam ni kii nii siñ bi muy def nekku siñ bu baax waaw pour wuti ndam am ko du siñ bu baax mm-hmm. moo tax yàlla eh, di ñaan tamit eh, yàlla na ko yàlla may xolu muñ mu ñëwaat ci làmb ndax xale la mm-hmm. di wax Zarko tamit yàlla na ko ndam li jik mm-hmm. di xam ne kay xanaa kay comme di la wax ni la gis nga même siiru signature boobu sax. Mhm. déggante naa jeeg Sarko. affaire Sarko diggante ngeen ci. waaw euh, maa ngi télé nekk di wax. moom mooy seetaan. Mhm. bi muy dem ci signature boobu sax déggante na nit jox na ma ko téléphone. Mhm. mu am kàdd yu ma wax mayit ma am kàddu yu ma ko wax. suuru signature ba. wax dëgg yàlla moo taxit daal euh, lii daal man bettu ma woon daal ko daan jéen kere moom. wax dëgg yàlla bu dee sama diggante yàlla rek bettu ma. waaw bettu ma wax dëgg yàlla ndax boo xoolee. ñoom ñaar dañ doon jekkonte waaw dañ doon jekkoo jéen kere taxawoon na position bu baax a baax a baax ba ci jouru làmb ji jéen kere amoon na position bu baax ci suba gi wante boo xoolee Zarko ki ma nekkalan toogalan ci euh, ci kaw rek di seetaan mbërum làmb la tur wi laay fàtte dafa am combat la 26 sax yaakaar na xam cinq 25 ñoo toogante ma ne ko Zarko fii la mënee mbëri muy dernier réglage la man gis nga ma ne ko gis nga Zarko tooñ yi ma lay def di la ruube bul ko xeeb dalay lay ba pare di def lu mu bëgg a def mu ne ko tegtal yu baree bare bare bu ko dee def da lay tooñ di la déstabiliser pour sa xel bañ nekk ci nga koy topp ci dàqante beeg wure bi. Mm. muy def li muy def bu waree cibbi sa tànk foofu la koy cibbee bu la waree xool sa doole da lay épaule ngeen daw daje mu xool ba xam kii doole ja ngi foo la nekku fi dara du def dara looy hasard ndax Zarko day làmb wax naa la ko fi keroog man la Zarko li muy kafe moo nekk liy dëggu ci moom. Mm-hmm. ni la Zarko nekkan bitim réew di moodu moodu jékki-jékki bàyyi fa moodu moodu bi nga xam ne looloo gën a noppale làmb kenn du la liggéey kenn du la def dara mm-hmm. nga ne ko fa ñukk ñëwaat ci làmb mm-hmm. jàpp bàyyi ma daan mbay guy gi daan daanaat euh, kanaat euh, beneen boobi Ada xam nga ne tey jii nii bu ko jéen kayra amee ay mbokkam war ñoo nelaw mm-hmm. ci axaanu ci làmb de te comme ci amaat tamit di nga amaat problème ndax euh, too taxawaay bi baax na te am na kàttan ci te mbër bu amee kàttan day neex a ñaanal te am na kàttan ji te taxawaay bu baax na. Mm-hmm. mais sëñ yàgg wax ne Zarko bu leen ko gis muy comédie nii kuñ am ginnaaw la ci lamb. dafa am ginnaaw xam nga ginnaaw mooy lan. Mm-hmm. mooy ñu jekku ba ñëpp ne dangay ngay daanu mu ñëw daan te sarko nag dafa wax lu am solo. Mm-hmm. làmbam ji dafa bari ñu ko doon xeex. ci baatin ak ci saayir moom mi may seetaan xam na ko li ma koy wax. moom mi ngi may seetaan moom Sarko làmb ji dafa am ñu bare bare bare ñoo xam ne danoo toogoon di ko see di ko seetaan ñii danoo toogoon di ko seetaan ñii dañ doon dem ci sëriñ pour Sarko daanu te ñoo xam ne tey jii nii bu Sarko ñaanu ma ko yàlla bu Sarko aman aman lu euh, ku de tey jii ñooñu kenn du leen fa jiitu ñoo xam ne pare woon nan def ci lépp ci baatin ak ci saar pour Sarko daanu daana xoola mbiri yàlla loolu mooy ginnaaw ñu jekku la ba ñëpp ni kii dañ kaa jekku wala ñu def la lii ba ñëpp ni kii kat tey du am ndam mm-hmm. nga xam ne ñoom dañuy wooy seen sëriñ seen sëriñ ah tey du baax de mm-hmm. waaj day daan de mm-hmm. waaj yi ñëw ci dernier réglage yi lijjanti ko boo xoolee dafa dem ba bi arwaaj sifle sax day mel ni jéen kayre sax moom la gàllaaj mujj jàpp day mel ni ko xof waaw day mel ni ko xof nga xam ne day mel ni ku ragal sarko da koy bàyyi xel waaw sëñ Cissé loolu nga wax noonu léegi am na solo loolu ba léegi ma des na ci ci làmb démb am na beneen striptease tamit bu ma gisaat ci làmb Laurent ak Tafa loolu ci làmb ji démb. Laurent moo daan boppam. xam nga tax man la <coughs> Laurent moo daan boppam muy Tafa Gueye dafa nekk magu làmb ba pare yàgg ak làmb ku nekk magu làmb nag kooku gàllaaj ak yi tegtal du ko jaaxal. te loraa démb dafa yàqal boppam ci benn côté muy côté tegtal ndax li ma lay wax damay bëgg askat bi bàyyi ci xel bu baax ak sëriñ si ñaan ñu dégg li may wax Laurent démb dafa toccal boppam li mu toccalee boppam muy Sarko dafa sol benn yére bu xonq xuma perkaal la xuma di dugg ci géew bi ngir ay def ay débadeeri boppam foofu Laurent waru ko na fekk warutu na fekk ni Sarko ci géew bi dafa war na génn bàyyi Sarko ba Sarko génn ba dem mu door a dugg ci géew bi def li muy def wante Sarko dafa dugg sol yére bu xong bi dugg ci géew bi teg ci benn mbaxana bu xong mbaxana boobu nag mooy rey moo leen di rey mm. sol benn mbaxana bu xong xama xama njaq xama njaq teg ko ci kaw bopp bi di wër Laurent moom it sol yére bu xong dugg si ci géew bi kon day mel ni sauf que day mel ni Sarko la doon bëreel moom lay war a bëreel mm. xam nga la léegi Sarko sol yére bu xong dugg ci rond central di def ay déwaare Laurent tamit sol yére bu xong dugg si xam nga toccalante mi ngi am foofu. dafa géey ma loraa war a dajeel nag. ni ma la wax ni la magum làmb la dafa toog fi mu toog rek. Mm-hmm. ndax dafa géey ñàkkul ni làmb ji am na luñ ko ci déy. Mm-hmm. moom it mu bàyyi ba Sarko sol yére xongam ba dugg ba génn. Mm-hmm. Laurent sol yére ba xongam dugg ba génn. moom it muy door a dugg si wër géew bi. te Tafa Gueye bi mu ko defee nag la làmb ji la làmbi Laurent yàqu. nga xam ne dafa toccal Laurent carrément carrément nga xam ne yére bi Laurent sol te am mbaxana Tafa Gueye noonu la ko ñëwee tam ma am mbaxana nga xam ne Tafa Gueye numéro 2 lu lu muy comédie comédie mm-hmm. làmb ji am na fu mu ko mm-hmm. te booy bi boo xoolee dafa mel ni ku ragal Tafa mm-hmm. dafa mel ni ku ragal Tafa Gueye nga xam ne mooy mujj sax di daw di sóoraale yenn yi wante Laurent la xale la lii moo la war a def mbër te lii tamit moom moo lay yar pour ëllëg nga xam fi ngay teg sa tànk gis nga dama lay wax ni la sëriñ si des fois bu ñu dee digal mbër yi dara nan leen koy toppal bu baax ndax tegtal des day dem ba ci biir ñu jox la tegtal bu baax wante day dem ba ci biir xama sëriñ ba mooy dem ba tegtal ba réer ko wala mbër ma kay ànd ak mbër ma moo xamu tegtal ba nan koy defaat day dem ba mujj indil koy jafe-jafe ki gàllankoor te démb dal na Laurent Ndiago waaw ko démb loolu am na solo loolu ci li nga xamante ne mooy li mu wax ci gis ngeen combat yi parce que moom ah kenn doon présenté seen Cissé ci làmb mbir mi mu bugg a yàgg nag te yàlla na yàlla suñu borom gën koy bàyyi ñu gën a avancé ci lu bëree bëri mais seen Cissé combat le di décembre bi Reug Reug Bombardier Bébé am a neex. waa waaw Reug Reug Bombardier moom am na lu ma ci gis wante ama neex ak Diène Kaïré moom eh, Bébé Diène moom sama yoon nekku ci xooluma ko wax dëgg yàlla. ñoom ñaan nag am na koo xam ni <laughs> waa de rëg-rëg daal ak Bombardier mm. combat buy neex lay nekk daal combat buy neex lay nekk de waaw mm. ah, bi ma seet seetsee fii jour boobu laa doon waxaale ci jéen kay rek sër ko mani la rëg-rëg keroog boobu taxawaay bi baaxal na mm-hmm. mm, keroog mooy mooy jour bi may waxee ci jéen rek sër ko nee naa la rëg-rëg taxawaay baax na baaxal na keroog ñàkkut a bon nag mm. ñàkkut a bon wante làmb ji na ci gën a defaat tuuti changement tuuti rek. wante li may xamal di la wax abu. Mm. rek rek day làmb. Ah, day làmb de. day caaxaanut de. te Bombardier du ko jàpp ci gàllaaj maa la ko wax. ak lu mën a xew. Mm. Bombardier du jàpp rek rek ci gàllaaj. fii maa la ko wax. ak lu mën a xew laa la moo xam boobu mat yéen daan ko moo xam mu ñàkkaa daan kenn du gis rëg-rëg ni dañ kaa jàpp ci gàlla ci suur làmbam ak boobu mat yéen maa la ko wax tey nga dégg ko ànd làmb joo xam nag ñaanuma ci ñaanaluguma ci kenn kon du ma sawar di xuus di ci wax ay tegtal ak i sarax ndax boobaa ku la ci woo tamit doo amati chance mm-hmm. Mm-hmm. mais ay ay ndox lañ de ci ndox bi waaw mbëru ndox lan wante ci ndox yi daa am lu ci wuute boo xoolee dëgg dëgg dëgg deret ji ci rëg-rëg la nekk ndax rëg-rëg lébu piir la waaw bare laal xama séeréel ko tawewoon eh, bombat ji nag daanaka kii la wante bokkuñu wante rëg-rëg moom ah, lébu piir la mu ngi mel ni nga ni ah, laadum ak mitis noonu la demee loolu am na solo loolu sëñ Cissé maa ngi ñëw na ci cappaandaw gi <laughs> seen sa mbër mi laay wax Modou Xarañ loo ak diggante moom ak booy Niang mais sëñ Cissé dafa am lu ñu gis ci booy Niang mu defoon ko Balla Gaye Sorano puus ñëw ba fekk sa place laal la Modou defoon na ko keroog fële déses Modou bàyyi mu sedd mais keroog ba mu ko defaatee Modou dafa réagir lan la. loolu de mën naa nekk ki loo xam ni sëriñ moo koy digal. suwaat mu yor gàllaaj goo xam da koy téye ci loxoom war kaa laale la ci yaram mu mbër mi ci sama xel mu gàtt wala mu nekk loo xam ci nappe lay nekk moom peese mbër mi xool ba xam ñime na ko wala ñimew ko wante keroog bi mu ko defee Balla Gaye Balla Gaye naa ko euh, àndul boo ñaar bañ Balla Gaye di ko dóori micro foofu Balla Gaye warutoon na dóor micro tépp ab arrêt la ko war na def hmm? bu nu koon téll ab arrêt boo ñaar day xam ne fii daraa fi gaynde gin koy woo mi ngi fii wante Balla Gaye dafaa nekk di dóorante ne anee ay micro booy bi gën kaa ñeme dem ba koy puus xam nga kon foofu la booy bi ñime bala Gaye xam peese bala Gaye xam ne kii bu ma taxawee dëgg sama bopp mënumaa daan foofu la booy ñaa xam ne bala Gaye mënu ko mënu kaa daan ndax amul fit woowu noonu jour boobu te Balla Gaye tamit daan nekkutan waaw dafa mel ni masalan ab dof boo xam da ngay yóbbu xel ma ñëw taxaw jàkkaarloo borom jàkkaarloo borom xel borom xel ma nu ko neex la koy daane wala nu ko neex la koy dumaa bi mu koy def moodu def na ko dëses moodu bëggut yàq signature wante boo ñaa dafa xaw a ëppal tuuti ku muy dajeel day def ay foot dafa xaw a ëppal nit buñ la may respect nga dem ba nungu respect làmb moo leen boole wante làmb lu mu leen boole bul yàq gis nga kere bu moodu nekkutoon mbër bu mag wala amut ay conseil bi day yàqu day yàqu de ndax Modou bu ko neexan bu doon beneen bër la ba affaire amee Modou day jikki-jikki di ñibbi te du mujj fenn di ndax danaa signature amul sécurité amul nangam lam defoon Balla Gaye moom lu bëgg na def Modou Lo ana bi mu ko defee dafa fekk ni kii nag moom mooy maami gaynde di yaayi gaynde di bàyyi gaynde yow imagine toi yow moodu ba ma ko nii eh, jëlu doole ji ba max ko booy ñaare nii rek la ko def booy ñaa di yi nara daanu te gis nga booy ñaar bi mu nee nii Modou Modou benn tànk bee jóg. nga xam ne foofu doole rek da cee feeñ. da cee da ngay xam ne kii ñaar ñi seen i entraîné seen entraînement bokkuñu nga xam ne ñii seen doole bokkuñu qualité doole yi bokkuñu gis nga fonki ak doole ju nekk ci biir danoo doonul benn. Modou doole ji dafa nekk ci biir nga koy gis ak tuutiwaayam boobu ànd boo ko bëgg na yenu pour dóor ko suuf day jafe. te booy ñaa ñaami gis nga ko bi ko muur defee nii dafa terteri te bu doon làmb tamit noonu la koy daane noonu la koy daane nga xam ne bi mu bi mu bi ko bi mu waxee loolu Modou ni ko àndul dafa war na àndu ànduwul Modou ba max ko xam na ni booy ñaa dama la ko làmb ji fii mu ko teg ci mystique mhm. daanoon Modou mi ngi na nag maa ngi ko gis muy daj coono yu métti wante mystique bi mu jël def ko fa bëri billaahi Modou ay bàllagay yi woon na sëñ Tuubaa Mbàkke noonu la ñëwee ah, nan daan ñëwee la ñuy ñëwee ay surprise ay surprise yoo xam ni surprise bees tàq nan daan ñëwee la ñuy ñëwee Moodu moom moo doon koo xam ne du changé mm-hmm. muy ni muy ñëwee rek noonu lay ñëwee Moodu du triché du triché bokkut ak mbër yi ñam daan àndal lay àndal ànd ak i mbokkam ak i niti kóllëram ñu ñëw gunge ko le premier janvier di lundi di chiffre bu baax. Mhm. yàlla defal ko ma am ndam ci kaw Boy Niang ñibbiwaat parcelle. mais mën naa ñëwaat nga ma jël bi kan contre Ama mën naa nekk. wante nag fi ma toll di yow. Mhm. bàyyi ñëw Boy Niang rek. waaw bàyyi ñëw Boy te abu mhm. gis nga làmb ji. dafa xaw a doy waar tuuti diggante Modou ak Boy gis naa ci ñoo xam ne xam nga man damay ñaanal Boy Niang du damay ñaanal Modou Lo xam ma du ma wax naa la ay ay ay ay dama ko gis nii nit wax ma ko fi may toog di toog laay xam léegi di wante bari na ci ñoo xam ne tey jii nii ñi ngi ñëw ci làmb sag làmb bu ñu ñëw mm. bon sañan Boy daan Modou ak pexe yu ni def bon sañan Boy Niang daan Modou te dañuy ñëw mën na noo gisanteeg Modou sax di ko nuyu yépp ñi leen di dëpp micro ñuy wax ci Modou lu rafet te seeni xol buñ sañoon booy Niang daan Modou nga xam ni kon làmb ji dafa bari loo xam ni dafa ay détails la moo daa mën a gis nga bu soobee yàlla le le premier janvier bu Modou daanee booy Niang hmm. amee ndam ci kaw booy Niang di nga gis ñoo xam ne dañuy ruusa ruusa ruus ba buntee génn buntu stade doo xam fu ñuy jaar barki Seexul Xadim gàcc gu gudd boobaa lay nekk du nekk gàcce gu gàcc gu gudd lay nekk ndax boo ñaa day def saa buy dajeek mbir mu mag day bari ñu koy jàppale ay paak ñu baree ko ja ba tegtal bu mu war a def ci biir làmb ji sax ay paa dañ ko koy defal paa yi nga suur làmb ñuy dugg seen dara yi di dugg génn yëpp ay tegtal la ñuy def di dem ci tëggkat yéeg di dem ci woykat baak di dem ci na yooyu yëpp ay tegtal la ñuy def wante Modou nee naa la wax naa ko fi benn indi mën na Modou li nga koy pexeel hmm. saa boo pour pexeel ko dara day mel ni dañ ko koy tegal écran nee naa la Modou bu nekkutan mbër hmm. dana nekk leneen loo xam ne nit ñi dinañ ko dégg si àddina si ndax suñu borom mooy def ay nit yooyu kooku pour nga peexal ko day yomb yow boo ñaa ba làmb ji taxaw ba léegi yaa ngi wër Modou mënoo kaa jàpp ah mënoo kaa jàpp yaa ngi sonn di gàllaaj booy génn signature da nga jàpp tey la bis bi te fi ni nii sa bu ni la yaa jàpp Modou Lo dalay nax fii may wax ak yow tey jii tey le 19 bii le 18 mm. bii ma lay wax le 18 décembre bii may wax yow boo ñaa sëriñam bu ne ko yaa jàpp Modou fi ni ne actuellement day lekk sa xaalis te mi ngi koy wër ba léegi mënu kaa jàpp barke Seexul Xadim mi ngi koy wër ba léegi mënu kaa jàpp te incha allah bu soobee yàlla ko mës a jàpp bu soobee yàlla lépp lu mu def dana ne man daal li ma koy ñaan moo du mbër moo xam ne day daw di jéggib saako kenn mësu kaa gis moom kay mooy dumaawe mooy duma mbër ba mbër ma génn saako ma ànd ak moom génn waaye nag Modou Lo arrière na ba génn saako wala duma na Modou ba génn saako moo doo gis ci làmbam booy ñaa nag damay ragal muy jàpp di seqib tànk di duggaat rek seqib tànk xam nga ñoom dañoo tàmm baa ji daa tàmm bu bu demee ba jékku rek danaa ko bu taxaw de bul taxaw bu jaree génn sax nag génn waane ngeemale bu laal suuf dafa xaw a bokk ak euh, laddegeet ci côté boobu ñoom danoo fonk comme ngeem bu mu laal suuf te loolu du làmb fay na la faykee ñëwal làmb bëri ak daaru ñooyam amateur danoo dagg béy seer sañse lu rafet bàyyi si nag njaboot ci biti ca kër ga ñëwal nga bëre ci fula ak fayda mu jeex tàkk wante booy Niang ak Modou Lo sans dara sans galak boo leen tëjeen ci néeg saa boo ubbee da ngay fekk Modou ci kaw booy ñaa ndax ndoxtu bëre boobu muy toppoo di ko wax danoo bokkul Modou ko dàq bëre foofu waxtaan wax dëgg ci la ku dee ak sa bàmmeel boo tegan écran fee teg fee écran teg fee Boy Niang teg fee kee nga dem bitim réew tànn tubaab bu la neex mm. wala ku la neex koo xam ne tey ji déggut olof déggut dara nga ne ko xoolama ñaari kan moo ci gën a nekk spécialité danaa la kii moo gën a nekk spécialité boo tegan koo xam ne tey ji day jàng bëre wala tey ji nii day jàng comme tey ji suñ bëre nga xam ne làkkkat la tubaab la day jàng suñ bëre nga ne ko ñaar nii ban bëre nga ci bëgg bëre Modou Lo loolu lay jël ndax kii bëreem dafa am avantage kii bëreem amul avantage ndax kii bëreem day mujj ba tëj làmb ji tëjaale boppam kii nag bëreem day ubbi làmb ji ubbi waale la yow sa adversaire sa buntu waaw gis nga Modou bi mu bëri ay Lac de tey dem ba maye loo xam da ngay jàpp ne yow lii da kaa maye te fekk na da kaa entraîné boo ñëw mu lay rey de boo ñëw barki Seexul Xadiim laa say mbokk di la lëng caaxaanewul làmb làmb damay dégg ñu naa Modou làmb jëral ko dara ku daanu ruus Modou gën a bañ defet ci àddina bu buñ ko daanee 30 minutes lay am ci géew bi du génn ngir bañ defet te ku say mbokk lëng yóbbu la ñaanal la nga dem di nga a ñëwaat ci kër gi di andi ak doq di ko sëggal Modou la gën a ban gàcce te ku la gën bañ gàcce ku la gën a ragal gàcce dàq laa euh, wut lu baax dàq laa wut euh, mbégte wante fii ma lay wax laa la wax booy ñaar sëriñam bu ko wax ne ko jàpp nga Modou Lo ci mystique wala téye nga sa loxo bii ci lu dëgër ci le 18 décembre bii mm. day lekk xaasam da koy nax rek jàpp na ne xamul Modou waa ndax xam na ko bu baax a baax a baax jàpp na ni fi ni nii nag moom moo xam Modou lu Modou def xam na ko wante ni mu koy lijjantee noonu lañ koy lijjantee hmm. ba lagros gam nekk xam nañ kër ga xam nañ fépp bu génnee di entraînement xam nañ ko lu mu nekk xam nañ ko scientifique bi dégg naa ko ñu laaj ko ñu ne ko Pikine euh, lagros nga nekk mën naa Pikine nekkul benn Pikine ndax daa génn làmb ji ci waa Pikine waa Pikine da ngay toog biir Pikine ñu commentaire ci booy Niang duñ ci commentaire ci AS Pikine la ni commentaire hmm. AS Pikine nag wala soq mi am làmb la ni commentaire wala AS Pikine hmm. AS Pikine lay baaxaate ci loolu la ñuy commentaire ci loolu la ñuy waxtaan ndax lan dafa jël dem boddee ko jàpp ne Pikine ñoo koy xaj bu ñàkkee ci làmb di gën a muur la dañ jàpp ne Pikine a koy xaj te fekk na boo dawee bàyyi say mbokk dem ci yeneen i mbokk di nga bëgg a ñëwaat say mbokk say mbokk lànk wante waa Pikine fi nu ko jàpp foofu la bu seen yéen nekk ci làmb ji dañ leen a toog seetaan neutre leen yéen toog seetaan neutre leen rek bu soobee yàlla première Modou loo am ndam ci kaw Boy Niang incha allah bu soobee yàlla rek bu ko defee Pikine 1-1 euh, euh, yi daal di ñëw rek Ama Balde ak kii 1-1 euh, yi daal di mat benn yoon rek waaw. Ah. jërëjëf sëñ Cissé bala ma tëjee émission bi daal laa ci dugub bi ak ceeb bii lii ma tëjee ko émission bi Babacar xam naa correctrice nañu làmb ñu bari bu làmb jeexee dañuy déglu sëñ la a waxtaan ak Abou. dugub ji nag ak ceeb bi ak seet la seet gu mel ni mosoo kaa gis ba nga juddoo ba léegi te sëriñ boo mos a gis mu ne la lii lii nii maa yor ci internet bi na ko génn wala mu ñëw fii ñu wax ma wax ko ne kii lii ak seet la moo ak seetu suuf gi danoo xaw a bokk xam seet suuf gi ramli la bii nag ci xeeti ramli la ndax keroog jàngal naa la ko wax naa la ko keroog ni la mhm. ramli dafa bari ay bunt ñu baree bari ba nag dañuy yem ci bunt bi ñii jàll fi ñii jàll fi mhm. wante lii ak seet la gis nga doomu aadama yi ay njaxasante la ñii noir euh, ñuul weex xeereer waa ne jëluma couleur yooyu dugub boo xoolee dafa xaw a mel ne lu jaune sàcc yu weex daal di sàcc ceeb eh, jël ceeb tamit boole ko ci mm. yii day jox ci xeeti nasaraan yi mm. nasaraan yi nga xam da dégg ñu naan mun leen a mu kenn mun leen a jàpp <laughs> nga xam tey ji buñ la doon noobloo jigéen wala ñu lay liggéeyloo eh, koo xam chef d'entreprise la mm. xam ma yee dana ko génne wante gii da la ci won lu leer naññi loo xam ne moom ba nga juddoo ba léegi mosoo gis lii gi lii lii ma la la cee wax lu bu ma boo ma boole woon ak nit ma seetal ko day jàpp ne yow sax yaa ma wax jafe-jafe yi ki ki kii am barki seexul xaddi nga xam dama lay wax man abu seetlu question loolu de ñi may seetaan ñoo koy xam billaahi barki seexul xaddi ku ma seetal ba pare di nga jàpp sa gémmiñ mm. billaahi barki sëñ Tuubaa Mbàkke loolu kay ëmbul lu ma ciy sikki sàkk bu ma doon def émission di def direct toog ci palaatoo di def direct dinaa seetal nit mu pare mun ma kii dan koy tooñ wala kii nangam nangam loolu nag mbiri suñu borom la ak sant la ci ci ci suñu borom goo xam ci ñun lay jógee dem ci suñu borom ndax loo xamut yàlla di la ko xamal li war a xew suba lépp nit ki du ko xamand suñu borom dina ko xamal ni ko lii kat dina la dina la dal lii kat dina dal diw lii dina dal li diw ëllëg nangam nangam damay dégg benn mbër yenn saay wala nit di wax naa lee lee war a xew suba yàllaa ko xam loolu ak réer la yàlla may na doomu aadama yoo xam ne li war a xew suba du xamul lépp danaa am luñ ca xam yow mi may seetaan nag boo gëmul loolu ma wax la loo xam ne tey jii di di di nga ko gëm nee lan la nit ki yore feebaram ah xamul feebar fu mu ko duggee nga seetal ko ne ko feebar bi mës ngaa dem dëkk sàngam nga lekk fa nàngam lekk ga nga lekkan moo la jàpp jàpp sa wet gi wala jàpp sa biir bi nii nii la lay defal ah, ba nga koy lekk nit ki dalaa gis te wax na la ko de te bis ba mu la ko wax weesu na te da la kaa wax ba pare nga war a dem fenn mun la yaa ngi jàpp yoon boo dee dem yoon wa di nga daje jigéen gu nangam jigéen gu xees jigéen googu dina am màndarga ci jëbi wala dina am màndarga te te da ngay toog mën naa nekk ay weer nga jikki-jikki jàpp yoon wa dem da ngay jikki-jikki dajeeg jigéen nga sa xel nekk ci sëriñ balam la waxan kon kooku xamul suba xam na lu xam donte bu xamul lépp waan lu mu bëgg a xam ci suba da koy xam ah mbër di bëri ñu ne ko nii lan lay daane te avant combat ba mu ne ko nii lan lay daan wet gii ngay daanoo boo daanoo nangam ak nangam wala boo daanoo di nga ci jële feebar te bu jour laam ci noonu lay daan te bu pare day am feebar koo xamut la xew war a xew suba nit ñi nan bàyyi ak réer mag ñi loolu la fa nekkat mi ngi fi ba léegi mag ñi looloo tax ba ba ba ba bu nawet daan ñëw ñu xam nawet bi day neex ren mhm. wala nawet bi day naqare ren loolu lépp ci ak xam-xam ci lay dox boo xoolee ci asamaan si nii lu tax ñuy xam wàllu lasraar moom moo lay wax yu bare bar nga asamaan si bu waree taw da nga xam biddiw am na nu muy génn da nga xam ne lii day taw taw bi day yàgg taw bii du kii taw bi gi dangay xam yu baree bari ci xeeti biddiw lay bokk. wante bu beneen émission dinaa la ko faram-fàccee leeral la ko ci wàllu lasraar. Mm-hmm. ba ñiy def lasraar. Mm-hmm. danañ xam li may wax bu baax a baax a baax. waaw mm-hmm. loolu moom kii na te beneen bu stop bu beneen émission dinaa leeral. ay bayre yoo xam ne. Samsun Bilal. ay <laughs> waaw yu leeral yoo daal yu am solo daal. wante ñoo ngi wàcce suñu kàddu. di baalu ak ñëpp di jégalu ñëpp di wax ni. dañ doon jàngale rek ak mm. leeral mm. képp koo xam am nga ci loola mettre ñoo la koy jégal di la balaaq ñun jaam bi bii taalibe suñ tubaab moo doon wax mm. ku ci dégg loola neex tamit suñ boroom la kàddu gi daal ñoo ngi koy wàccoo fii di ñaanal daal suñ muntaxaa suñ borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu tamit di ñaanal tariixa yëpp tiijaan xaadir laaya ñese ñëpp suñ borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi loolu te wér di ñaanal waa diaspora bi suñu boroom defal leen jàmm ndax tukki bàyyi sa njaboot bàyyi say waajur bàyyi sa soxna dafa metti lan fay daw pour yaakaar ko fi yàlla nan dajeeg moom mu jig ñu ñibbi si seenum réew ñii dem ci microgora yi ñu naa danañ ñëw du ñëw yàlla na leen fa yàlla téye ba la tax ñu bàyyi seeni kër bàyyi seeni place jaay seeni place bàyyi seeni njaboot yàlla nañ fa dajeeg moom ñibbisi waat bu dee ñibbisi yàlla nañ ñibbisi ci mbégte ñi deman ci microgora yeeg euh, muudu muudee ñëpp rek di wax ni daal maa ngi baalu àq ñëpp di jéegul ñëpp di wax ni waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu